taw yi ak euh, ndox meek bariwaay gi yàqu-yàqu yi euh, baw fa Touba gox bi di kax euh, quartier Poulailler rawatina lu fa bari yàqu fa askan wa nag moom ay gëtam la dese amul i moyen jumtukaay moo waral ñuy sàkku ci kilifa yi taxawu Cheikh Abdou Khadir Mbacke Seck ka fa ak Alioune Diagne. loppi fukki kër nekk ci ndox mi loolu moo des ci koñ bi ñu wooyee Poulailler sa Touba lor googu yokku na mbënd mi. maanaam sunu bagaas yépp yëpp matériel bi tout amul yére amul bagage kër li xeetu bagaasu kër yépp du lal du fauteuil yépp armoire na ci biir wàllu xaalis trois cent mille francs moo ci réer eh, maanaam dund ah, ñaari saaku ceeb benn saaku dugub ñaari xar dee na fi loolu mooy li nga xam ne si yàqu na fi. wute na nag ak dëkk yu bari yu am mbënd ndax ay sites de amuñu fa ñi seen kër looruwul ñoo dëkkal ñi nga xam ne ndox mi daan nangu seen dëkkuwaay. ñun fi mu toll nii ñu ngi suñu dëkkandoo yi rek ci la nekk. dañ ñu abal kër fii ci suñu wet fi lañ nekk. ñi dëkk sa koñ boobu xamuñu fu ñuy jooyee ñoo ngi ñaan dimbal. daal lu nu waay jàppalee xeebu nu ko yéemu nu ko luñ nu jàppalee rek bëgg nañ. ak lu mën di doon rek ci te muy ndimbal loola xeebu na ko yéemu na ko. defaral ñu koñ bi ba du taawati rek. bu ñu pompaloon yooyu dindi ñu salte bi moo ñu gën a amal yitte daal. taw yi nag yàq nañ lu bari sa Touba benn parti sax ci miiru armée la dafa daanu.